gis nañu ci juróom-ñeenti at ñi nga xamante ni moom la King Fahd Palace yor ci njiitu Mamadou Racine Sy gis nañ ni yor bi ñu yor bi teguwul ci yoon nekkaay bi metti woon na trop lu ne daj nañ ko fa kenn du wax kenn du sëqat ku yëngatu ñu licenciement ku yëngatu ñu mise à pied def ko maanaam gestion boo xamante ni kenn mënu wax naka la ko gérer lëndëm trop amul benn leer-leer mu profitoo ci nag bi nga xamante ni Covid bi ñëw na mu daal di ci profitoo daal ci licencier juróom-ñaar fukki père de famille ak juróom-benn. juróom-ñaar fukki nit yooyu ak juróom-benn mu licencié leen ci bi Covid bi amee te moo na de directeur d'exploitation ba fa nekk Pierre Mbow waxoon na ne balaa ki Covid bi di ñëw daawoon nañu defar un chiffre d'affaires de un milliard par mois un milliard par mois ku koy def chiffre d'affaires est-ce que xel mun na nangu ndax juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom-benn ci fi ñu doon liggéey ñoo xamante def nañ fa fanweeri at ñii def nañ fa ñaar fukki at ak juróom ñii ñaar fukki at nga ñëw dàq leen ci kaw nee nga mënatoo leen fay te yow nga wax ne yaa ngi def chiffre d'affaires un milliard par mois te moo ne de moment boobu mu doon def Radisson teer bi ñoom ñëpp ngi fi te booba ot kii bi nguur gi pour bañ mu dàq jox na ko ndimbal na ko léegi dañu bëgg jox la ndimbal pour nga mën a bañ a dàq waaye ci bopp tamit mi ngi doon fay nit ñi genn waaru salaire di ko fay ñu ñëpp ñu di ko mun ba nguur gi jox ko ndimbal pour léegi mu bañ a dàq waaye loolu def ko teewu dafa dàq bi mu leen dàqee ñëpp dem toog seen kër teeru bi Radisson ñoo ñëpp jot nañ ndimbal comme moom waaye ñooñ dañoo daal di jël seeni liggéeykaay daal leen delloosiwaat li ñu licencié woon ñu delloosiwaat leen ñu commencé waat di liggéey ñun boobu ba tey ñu ciy topp guddeeg bëccëg di ci topp di ci topp ba léegi ba fi ñu koy waxee ba léegi delloowuñu ñi nga xamante ne ñoo fa desoon ñu dàqandoo mu ci juróom-ñaar ak juróom am na xam dem nañ sax retraite am na si xam dem nañ retraite waaye ñi ci des ba léegi waxagul waxu jëlaat leen. te ba tey mi ngi continuer di jël ay nit ay nit yoo xamante ni base politique am lañ ay nit ñoo xamante ne xëy na ay mbokkam lañ mu jël leen Podor di leen fa indi ci ñoo xamante ni mënuñu sax liggéey bi ndax ñi nga xamante ni ñooñu la fa ñooñu la fa jëlee ñooñu jaar nañ école hôtelière seen formation ba mu mat nekk di fa liggéey ñi ñu fa jël ñëpp ku ci nekk da def formation ak sa diplôme tey mu ñëw génne ñooñu dugal ñoo xamante ne xamuñu fu mu leen jële jànguñu jël dugal leen base économique ak ñoo xamante ni ay mbokk tukulóor la su ko defee dafa mel ne puusal ma toog la fa def loolu nag la bëgg nag xamal nag ne leen nag loolu metti na ndax tey si tey boroom kër yi ñu ngi nii seeni kër mënatuñ koo doxal seeni sëy tas na ñii seen dellu nañu dëkk ba ndax mënatuñoo fay luyaas fii ci Ndakaaru ñii dàq nañ seeni seeni seeni doom te fa ñuy jànge loolu nag dafa metti ñu ne nag ñoo ngi nag léegi nag nguur gi pour mu gees mi ndax metti na fu metti yam